da nga doon attaqué président Babacar Dia avant Matar ba bu fi Matar ba nekkee. bien sûr avant après avant. bien sûr bien sûr euh, c'est-à-dire que cest euh, man lu ma jaaxal. mooy yow le fait que nga ñëw déglu ma rek le fait que nga ñëw. nga ne da ngay wax basket après nga wax man loolu moo ma jaaxal. non da si histoire bi en fait. mais yow ce que tu ne que tu ne comprends pas c'est-à-dire que le basket c'est Babacar Ndiaye c'est personne d'autre. ah bon oui. non lui la personne morale. mais y a des équipes y a des. voilà y a des ah. clubs doo déglu doo déglu non bien sûr maa ngi lay déglu da may déglu wala ma tig tekk ci micro ma génn dem tekk ci micro ma génn dem ci ma. non génn moom si am génn du si am parce que xam nga man je dis un international de basket. un professeur pendant 14 ans ancien président de la fédération de basket bailleur de cette fédération pendant 30 ans chef d'entreprise ça non man mënoo ma mënoo ma mënoo ma dugal si ruxu jinne Babacar Ndiaye bu mu tax nga dugal ma dugal si ruxu te tu n'y arriveras pas. non man lu a créé des clubs fantômes par exemple yow euh, comment est-ce yow yow bii xam basket tuuti par exemple club benn club président ligue bu nekk jur Diourbel euh, ligue euh, bu nekk Louga One Love One Love club la turu club la One Love One Love wan la boîte de nuit la wala tur club la. <laughs> ah am nañ fi flying star am nañ fi flying star. donc flying star flying star c'est des stars <laughs> c'est des stars. c'est des love walloo c'est des basketball love alors jëlal jëlal kii jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal résultat basket bi yëpp depuis depuis trois quatre ans cinq ans foo xam ne mos dafa jouer et pourtant le jour du vote il vient voter y a un club c'est des footballeurs. association nationale des footballeurs xaw ma lan de Guédiawaye ils ont un un un récépissé du basket. Mhm. xam nga loolu c' est ça qui nous pose un problème ak basket bi Babacar Ndiaye nu mu koy doxalee xam nga par exemple les dernières fenêtres il a amené six si délégué pourquoi six délégués. moi je suis un président mais il faut un délégué délégué mooy koo xam ne boo amee instance réunion foofu mooy dem di wax mais si délégué délégué bu nekk devait avoir treize millions de francs CFA. un nombre de quoi Afrobasket 2019 il y a eu sept délégué a eu 18 millions de francs CFA amul kenn koo xam ne fekk nga réunion fekk kii ce sont des amis à lui qu'il prend il met autour du basket. alors Com comment que tu peux comprendre yow toi être l'avocat du diable de Babacar non man nekkuma avocat du diable man ma leen posé ay questions rek man nekkuma benn avocat yow ñoo guma si yow xaaral après c'est moi qui te poserai des questions yow comment est-ce que tu peux comprendre moi j'ai des images non ko bëgg a def débat personnel quoi. waaw dama bàyyi ma yëgale. man dama bëgg wax si basket bi la bokk na saxal basket bi. loolu basket Babacar Ndiaye loolu la ma ne la ma la Babacar Ndiaye di ko que c'est lui le basket mënoo wax la tu as hmm. basket mu nekk délégué fédéral. délégué fédéral c'est-à-dire que délégué mooy boo demee si benn dëkk tu représentes le président de la fédération et la nation sénégalaise. c'est-à-dire kenn du fa wax yow yaa fay wax après le championnat def Tunisie mu def naka su dul noonu dem simmeeku comme ni ko yaayam juree tëdd si kaw lal ah di teg portable am di film boppam ak benn xale bu jigéen bu nekk sa Mathusalem image yaa ngi fii. loolu xam nga loolu loolu loolu ce n'est que ça ce n'est que ça ñoo ma ko yónnee. e ça moi je n'ai pas apprécié parce que ce n'est que ça rek Babacar Ndiaye devait sanctionner man bu doon suma rak bu ma bokkoon ndeg bàyyi keroog keroog laa koy dàq ci biir. mais loolu mais ces gens loolu lay détaillé le président. mais ñu aussi eh, soo. man maa ngi posé benn président li wax ni xam nga loolu vie personnelle nit ki la en fait. ça n'a rien à ak li ñuy wax nii.